dund gi nga xam ne moom la état bu senegal doon séddale doon ko jàppale askan wi ci jafe-jafe yi nga xam ne mu ngi bàyyeekoo ci jàngoro ji di korona virus séddale boobu jaarul yoon fii ci Touba ndax bari na ñoo xam ne gisuñ ci seen bopp. li am fépp moom moo am fépp sooyo boo ma ne mboolem Touba loolu moo fi am ñun nag rafetlu wuñu ko lan moo fi am séddale bu jaarul yoon. mooy ci comme bu dee ci séddale bi ndax daanaka mën nañu doole bi ñëpp daanaka ay néew di doole lañ ñëpp ay jigéen lañ ak ay xale ñaare bi bu boobu jàllee séddale bi moom gisuñu si benn yoon sunu bopp. ñàkk gis seen bopp googu moo tax kuréel làmp International Xidma dal di génne ndimbal lu takk lool jàppale ko ñi nga xam ne ay waay laago lañ te nekk ci dëkk bii di Touba ndax ñoom gisuñu benn yoon ndimbalu état bi. état du senegal lam doon séddale di ko jëmale ci néew du doole ji ñu gis ni fii si Touba ñoom ñiy féete fii doon ay handicapé nga xamante ne si tey mënoon ñoo wax ne ñoom ñoo ko gën a yellool waaye mel na dañ leen a fàtte wala bokk dañ leen a ginnaawal wala bokk dañ leen a xañ seen ak ak seen i yelleef wala bokk dañoo doon ñoo xamante ne si dañ leen a boddi ñun kuréel làmp nag comme dañuy xeex ak ak yelleefu doomu aadama yi rawatina Serigne Mountakha jox ñu ndigal ngir ñu toppatoo njaboot gi kon ñun ñoo war a njëkk a jugaat moo tax ñu ànd ak jàmbaari gox yi nga xamante ne si ñoom jigéen yu mën góor lañ. ñu dajale suñu déem ak suñu daqaar. ndax xañ na sax mënuñu ko waaye ñi ñu koy joxe ñooñu ko gën a yelloo ndax ñoo leen tane waaw te lépp nag si ndigalul sëñ mu tàqaax si ndigalam. dañuy dajaloo dénkaane ba màggal ak joxe sociale boo xam ne sax alxamis dañ ko ñun ñëpp képp ku bokk ci mbale mi rek yaa ngi ko fay joxe social boobu ci lañ génn lii tey. ñii di askan wi nag profité nañ ci ndaje mi nga xam ne ñu ngi ko doon amal ñaawlu jafe-jafe yi nga xam ne ñu ngi am seen quartier yi. daaru Karim Touba Loyenne ñu fay dund lu métti nag ndax suñ koñ amutub courant amutum ndox amutu yoon fii may waxee ak yow tey bu ñu taw bi fekkoon fii suñ demee buñ doxul du ñibbi ndax su tawee yoon amu fa oto ya fay daw akus néew duñ nangoo dem barki démb laa yónni samay xale ñu kar leen ci diggante bitig bi ak sama kër te lépp li ko waral mooy ak lëndëm kuréel lamp international xidma di ñaan état bi muy teg mbir yi ci yoon ndax séddaleem dund gi fii ci dëkk bi jaarul yoon te nu mel mu ngi ciy woo Moustapha Cissé Lo damay wax président Moustapha Cissé li nga wax ci rajo yeeg télé yi am na lu ci rafet lool ba ñëpp rafet la ko man boog rafetlu naa ko lool ndax danga wax ni na mbir mi leer nañ teg dëgg ñuy lóbal àll réew mi nañ leen teg ci yoon xëy nag la ci ñeneen rafetluwul mooy saaga ya ca topp la nit ñi rafetul waaye nag la nga wax moom dëgg la gu wér loolee nag dañoo bëgg nga nga tàmbalee ko yow ci sa jëmmi bopp ndax fii ci tuuba ku ne xam na ne quartier boo fi dem coow laa nga ni kur détournement yi ñu jël saako ceeb bi jàmbur yi xaaju guddi xañ ko néew du doole ji di ko jaayaat te sax njaboot ñoo jiite coordination bi. kuréel lamp international xidma di dimbale ñenn ci askan wi waaye di amal ay tàggatu di ko jagleel ñi nga xam ne ñoo di jigéen ñi ngir ñu mën a demal seen bopp.